Eh, ci seen eh, émission eh, bi ci biir Feeling Dakar moom laa dal Abdou Nguer kenn du ko présenté ci réew mi ndax tamit c'est un frère Adji Sarr te gis nañ ñu Abdou Nguer ginnaaw sax bi ñu la baalee àq ba pare gis nañ li nga xamante ni moo jot a xew jamono ji bokk ci statut bi nga xamante ni kii di Adji Sarr daal dina koy def xam ne ni Euh, kii di Gabriel Kane na ko bàyyee di ko fenal tey tamit ku ëpp lu mbokk mënoo koo jëw lu waral lu waral Adji Sarr daal def boobu statut euh, Abdou Nguer non man loolu sax garaawul ci man parce que entre coowu jigéen la mhm. du si dugg mais daa am ñaawlu comme la di ko fa ñaawlu commencé ba fa ñaawlu yam parce que daa ñoo xam ne mhm. dañoo jugoon di dimbali aji te yàlla rek tax mhm. nga xam ne ñoom ñoo sàkku ci ñoom ndimbal Mm-hmm. maanaam aji ak ñi ko wër ñoo dem sàkku ci ñooñu ndimbal mm-hmm. ñu dimbali leen ngir jëmmi yàlla suñu borom tax ci sutura mm-hmm. kon lu mën a xew même bu ñuy weerante bu ñuy yàqante der bu ñuy kiyante ñooñu nañ leen épargne waru ñuy tudd foofu seen tur naan diw ba mu ko dimbaleek diw la mu ko jox parce que diw moom ba mu koy dimbali bëggul woon kenn yëg ko da ko doon def comme ni mu ko doon defal ay moroomam parce que am na ñoo xam ne dañuy def social dañuy dimbali nit te duñ bëgg ko yëg mais cas bu mel nii am ñu ci tudd ku ne ñu naan yaa complot complot mhm. soo demee ñaan nit ndimbal mu dimbali la pare nga vilibaane ko ñu bari dañuy ragal parce que ñu bari tey woo nañ ma ne ma lii a taxoon soo ñu masaan wax dimbali leen ko ñu rasu. Mhm. parce que lii lañ doon bañ. loo ciy teg waaw rek nga ciy teg yow loolu laa ciy ñaawlu moo tax ma jóg def vidéo ba ne na dakk maanaam su ñuy yàqante. Mhm. nañ jam entre ñoom mais ñeneen ñi nga xam ne seeni tur a ci. nañ leen épargner parce que ñooñu ndimbal rek moo leen ci dugal parce que waa Pastef ñeme nañ yàlla ñeme goo xam ne même boo jege woon wetu kër aji sax ñu ne ah wóop ca nga bokk. lu tax nga tudd waa Pastef. damaa xam parce que ñoom man damaa ñàkkanteeg ñoom ba fii parce que ñoom moom man du ma leen may dara bugguma tamit porox ndoll bu ñu am ba yàq deru jàmbur yi ndax parti Pastef la lu ñu xaw a xelmati rek. Eh, ah, Abdou oh. Nguer ñoom ñoo sosolante seen biir parce que Adji Sarr ak euh, Gabriel Kane ku ku xam aj Sarr xam ne Gabriel kan naka laa gis ci côté donc bu ñu demee ba lii xew nga bëgg cee boole Pastef aussi day day day nekk loo xam ne c'est compliqué. non man boolewuma ci Pastef dama ne. Uh-huh. ñoom seen bopp. lu uh-huh. ñu luñ luñ waxalan ne ñoo xam parce que ñoo dëkk seen 9 mois. Uh-huh. xaw ma un yoo xam ne ñoom ñaar ñoo dëkk. amul problème mais daa am ñoo xam ne dañ leen dañ doon dimbali xale bi ngir jëmmi yàlla te léegi nag bu dee. lépp lu ngeen waxante ay turi jàmbur ne ca mais bu ngeen demee ba koy diviser. Mhm. war ngeen a épargner ñooñu xam ne seen yoon newu ci yéen a yéen leen ñaanoon ndimbal loolu laay ñaawlu mais li ñuy waxante coowu jigéen la loolu juma fu da sax mais dafa am ay gor yu baax yoo xam ne man dama leen xam. Mhm. te damaa xam ne génnalante audio yii suñ ci waxul mu dakk leneen dina génn leneen dina génn loo xam ne ñooñu bañ koy def defuñu ko ngir bañ Sonko defuñu ko ngir dara xale bu jigéen moo sàkku ñoom ndimbal wala ñi ko wër a sàkku ci ñoom ndimbal. Mhm. ñooñee jug def ci seen alal parce que man mii am na ci ñoo xam ne ba ma leen woowee ne leen dimbali leen ko dañuy yëkkat seen alal def ca. Mm-hmm. mais defuñu ko ngir xale bi dañ defuñu dañ ko def ngir jëmm yàlla mais ñooñu tey ñu xëyee mm-hmm. seeni doom dégg ñu naan waaw ba mu ko dimbalee ba mu ko liyee loolu dafa rafetul comme doon yow tamit du la neex. Mm-hmm. moo tax ma jóg ne na rakk ku demati bay génne audio na yem sa diggante ka nga ko séqal mais kala dimbalee wax dañ ca wax kuppati ko ba nga teg ko fële. nga génne la ngeen di génne. entre ñoom la nañ rayante mais góor yu baax yi nga xam ne ne ci réew mi yor ay ndomba tànk di liggéeyal réew mi nga dem sàkku ci ñoom ndimbal ba dimbali la mhm. wax dëgg yàlla nag bul def luy taasal seen tur mhm. ndax dossier bi kat mboolem ñi ci dugg saaga nañ leen ñi ñu xas leen ñi ñu posté leen ñi ñu waxal leen lu bon tañ am njaboot mhm. te képp ku ci dugg yërmandee tax aju yorul cent bu mu jox kenn ñi ci dugg ndax yërmande nag waruñu ci jël loraange boo xam ne da leen di topp moo tax ma bëgg mu dakk Mhm. ci si ku ci am audio booy génne daal na sa diggante ki nga ko séqal Gabriel bu waxee ci aji na aji génne la Gabriel wax ci moom mhm. bu fekkee tudd nañ ca keneen nañ kuppati loolu sànni fële parce que kii kii kii bokk na ci ñu doon jàppale aji est-ce que est-ce que yoon la aji di waxuma waxuma jàppale mhm. jàppale gi sax waxuma ko loolu beneen côté la waaye daa am benn booy bu nekk ci TikTok bi ñu koy wax maanaam compte compte bi xel mu sell laa ci xam xel mu waaw d'après bi affaire jógee dama def samay investigation laaj yëf yi fu mu jógee. Mhm. xel mu sell moo woo Gabriel. d'accord enregistré ko. Mhm. dem yóbbul ko aji. aji saar ci jëmmi boppam moo boo génne audio bi bu bu ko kenn jiiñ kenn nag bu kenn jóg naan dégg naa Mollah Morgun di fen naan Mali day fen lu fi génn ajee ko génneel boppam. lu tax mu génne ko. loolu nag moom la engagé waaye turi jàmbur yi nga xam ne si. Mhm. ay dégg nga ñi ci tudd di ay kilifa nga xam ne ñoom dañ ko dimbale ngir yàlla barki alxuraan amul kenn koo xam ne def nga ci dara ngir bañ Sonko ngir dara danga ko def ngir yàlla comme comme sa doom bopp la preuve de histoire Mamour Diallo fi la ñu fekk. pourtant ñoom ñoo def ci Mamour Diallo sàkku fa ndimbal. Mhm. leer laa la wax Mamour yëgul. Mhm. tinul xamul fu suite boo te ne. ñoo ko sàkku ci moom ndimbal. mu dem dimbali leen ñu enregistré ko ba mu génn noonu. mais lan moo tax Abdou Nguer Adji Sarr à chaque fois muy def yooyu noonu lu waral non non lii nee naa la xel mu sell moo dem enregistré Gabriel dem jox ko Adji loolu loolu sama yoon wu Gabriel xel mu sell la waaye xam nga lu ma naqari man tur yi jàmbur yi nga xam dañ doon mhm. laa bëgg épargner ko ci ba mu set wecc mhm. parce que ñooñu bañ koy def lii taxul woon boo yor sa geeru bopp te lii audio yi mois de novembre la ah ça mois xaw ma neuf mois kon bu ñu bàyyi ba tey àtte nañ Sonko ku ne na dem luñ ciy génne génne bi ban njariñ la am. est-ce que li nga xamante ne moom la Gabriel Kane di wax ci biir audio yi que ni Adji Sarr koo ko boo ko présenté sa nit bu baax day dem daal lay suufu di def ay vidéo ci toilette bi di dem di ko envoyé ngir suufu ko ngir am ci xaalis moom ndax loolu mën nga ko confirmer. ma ne loolu entre ñoom la. Mhm. man du ma confirmer du ma entre ñoom la yooyu man garaaw bu doon yooyu kese foofu lañ yem du ma ci gàng li ma ci xam genn wàllu walaati walaati ñiy wax nii xamuñu ko ci li tax ma jóg ne stop parce que am na lu may bañ. lan bañ Abdou. loolu noonu loolu nag foofu laay yemagum parce que bu ma bëggoon mu génn dama du ma ne stop. ndax da ngaa gis yenn loo xamante ni. peut-être am na daal man ne naa la am na ci yoo xam ne bugguma ko te bugguma mu jëm kaw. Mhm. te damaa bëgg mu teel fee yam. parce que ña ko séqoon bañ koy def ngir yàllaa taxoon ñu koy def te mhm. dañoo am njaboot. d'accord dudd nañ ci ku ci mel ni Mamour Diallo encore tuddaat nañ ko ci li nga xam mooy audio bi tuddaat ci ki nga xamante mooy Bamba Kassé Abdoulaye Der Bougane Gueye Dany ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoo ñëpp tudd nañ leen ci li nga xamante ne mooy audio bi ñoo ñëpp ndimbal leen ci dugal ñoo ñu jëluñ seen téléphone woo aji kenn woowu si aji aji moo ñëw kenn ci ñoom woowul aji mhm. aji ak ñi ko wër mhm. ñoo ko doon ñaanal ndimbal ci ñi nga xam ne man ña nga xam ne si jaar nañ ci man mhm. pour dimbale aji xel xalaatul sax nit di leen tudd lu tax loolu parce que xam naa. Mhm. man maa demoon ñenn ñi sax dañ ma gàntal am na ñoom bi waxee dañ ne ma yéex ñun sawaay loolu duñ ci dugg mais tey dañ ma woowaat confirmé ne ma lii waxoon nañ la ko lii lañ ci doon bañ moom ñoom dañ leen heureusement mhm. mais nag ña ko def ba pare te yàlla rek tax ñu def ko ñooñu lañ baa bëgguñu épargner leen ba ñu set wecc mhm. coow li moom ak Sonko la woon yoon àtte na. buy ubbi beneen front na ko ubbi ant ci ci ñoom même ligne bi kese mais ñii nga ci tudd nii yaa eh, xayti mu laa bamba kase daa daa lijjanti aji Ablaye Der ñi dañoo lijjanti aji mais ay nit lañ yoo xam ne dañ leen a xam ci social ñi nga xam ne xamuñ leen ci dimbalee kenn woowu leen ah ñi nga xam ne xamuñ leen ci dimbalee kenn woowu leen te am na ñoo xam ne dimbali nañ ko tey buñ toogee ci nen du toj ndax ñi ngi xalaat seen tur génn ndax waa Pastef ak ñii dañoo man kàcc mais Abdoulaye bàyyi voilà yow yow man damaa xam man ñi ma ko non mais euh, yoonu Pastef nekku si vu que yéen yéen nekkoon seen Gabriel Kane la woon ak ki nga xamante mooy Adji Sarr ñoom ñaar ñooy weerante waat entre ñoom donc yoonu Pastef nekk ci d'autant plus que gisoo benn yoon ku nekk Pastef koo xamante jël la benn audio Adji Sarr mu bind ci texte depuis lors gisuñu ko ci donc bàyyil waa Pastef ñoom seen yoon nekku si yéen a jiitalante woon viol ñu génnee euh, ne loolu xam na ko loolu féete na bi mm-hmm. ginnaaw mm-hmm. li ma la wax nii mm-hmm. moo moo fi ne entre parenthèses parce que dañuy wax ci réew mi lii avertissement la rek bu ma jox ñi ko séq. ñi ko séq avertissement la avertissement la pour ñoom. pour ñoom Adji Sarr ak Gabriel Kane ñoom ñëpp ñu yamale fi mbir mi nii. Mm-hmm. képp wala lépp lu ñuy génn lante. d'accord Adji sax moo génne audio bi. Adji moo génne kon Adji nga xel mu sell moo enregistré audio bi jox ko mm-hmm. Adji Adji ko génne. audio bi yàgg nañ ko ruumandaat du tey. Mm-hmm. yàgg nañoo ruumandaat audio yi du tey entre ñoom ñooy waxante seen bopp. na fa yem wala kenn jël téléphone li nga ma waxal du dëgg saaga ko mu yem foofu seen biir mais ñun soxla wut ñu koy jox luñ ko léegi lan la ñuy jariñ ñun léegi lan lay jariñ turu jàmbur yi ñu ci yàq lan léegi ban ban njariñ lañ ci am léegi kan moo ko xalaata ti ci àdduna léegi léegi lii bu continuer képp koo xam ne si amati nga problème kan moo lay dimbali mm. moo tax ñu war a seet li ñuy def bu baax a baax man nit bala ngaa def da ngay seet gis nga nit da ngaa war a nekk bàmmeel. Abdou Nguer li mu xam lépp lépp lépp lépp tey. su ko waxoon yaakaar naa semaine bi yëpp ci loolu ngeen di bës mais dama préféré nekk de tëddaaleeg moom deewaaleeg moom. parce que golo yii ñii ñii wër nii nii nii di wax di enquête ak enregistré mënuñoo am information moo tax moo tax ñuy dem ci nit ñi di leen di leen di leen jege di wut ñu fen mais ñi nga xam ne mën nañ am information soxla wuñ di la jege yow. Mm-hmm. ñooñu wuñ dossier cercle boobu noonu yëpp yëpp yëpp ku nekk ci ñoom mën naa la wax loo xam ne déwuma ci moom sax pour am ko te pour pourtant xam ñi may jëflanteel xam ñi ma nekkal moo tax. moo tax man dina raar dina raar ñu génneel ma loo xam ne dama koy réccu. ok bi problème amee ba tey déggante nga ak Adji Sarr. non gëj naa ko dégg depuis bi daanu gëj naa ko dégg wax dëgg yàlla yooyu su yooyu sax garaawul. Mhm. dégg gi ñàkk dégg ma njariñ xam nga lu ma amal intere mhm. réew mi na jàkk képp koo xam ne da ngay jug pour def lu baax bu la ci lu bon fekk mooy yu mel nii parce que ñii bañ ko doon def kenn yëgu ko ba ñun yëkkati seen alal di ko dimbali kenn yëgu ko mais tey gisuma leen mais amul lu leen neex ah. nit boo koy far da koy far ci dëgg gis nga jege benn xale bu mooy ñoo ñooy tiktokeur yi ma lay wax jege benn xale bu jigéen di dem di jëli ay fen di ko ko jox loolu yëfi góor jigéen la te dañ koo war a teg ci suuf. góor sax moo warul di dem jël ay info di ko indil jigéen naan ko am ki wax ci yow lii kii démb wax na lii kii ba mu loolu yëfi góor jigéen la dañ ko war a teg ci suuf ci jigéen kese la am na yoo xam ne boo ko ko joxee mu génne ko jarul soxlawul loolu bu doon lu waay wax ci aji dem nettali ko non kon kon kon duñ kon dëkk di heure bi eh, leneen la ñuy wax mais nit ñi nañ nekk ay góor tuuti boo demee. nga waxtaan ak nit par exemple ma ñëwee waxtaan ak yow maam mari mhm. loo jotee ak Sidi loo jotee ak euh, si Pape. Mhm. nga ne ma Pape def na ma lii def na ma lii def na ma lii def na ma lii. Mhm. bu dee lu baax bëgg nag damay dem ci Pape waxtaan ak moom mais du ma jël li nga wax yow di ko jox Pape. te xel bu sell loolu la def. léegi nag ba mu ba mu demee ba koy def man li ma ci mënoon na ne ku pet tur tur yi ñu tudd nii mu génne ko ba mu set wecc mais te li ma ci jaaxal moom ana ay waxam. ay waxam ñëwut de. Mm. affaire MC ñas yi laay bañ mooy dem defar say audio ñëw dagg say wax indi waxi jàmbur man li mu bëgg man. Mm-hmm. soo demee ba koy def génne lépp ñu dégg li ngay wax dégg li kii di wax ñu xam ne lii ngeen doon waxtaanee mais ñu baal ma lii lii li yëfi mbaam la quoi nañu bàyyi yii dafa am gor yu set wecc yoo xam ne sii dañ dañ doon dimbale xale bi te ngir yàlla xooluñu ci woon dara wala alxasim am na ci koo xam ne sànq bi ñu coupé dane ma sama digganteeg yàlla réccu naa. musuma defal nit nag di ko rëccu mais tey moom rëccu na est-ce que Abdou jotul comme que yow frère nga ci ci ci Adji Sarr jotul tamit euh, nga wax ak moom. li may wax dina ko dégg li may wax nii. Mhm. dina ko dégg.